asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Cheikh mbake moom sëriñ Saalihu Mbacke moo dellusiwaat di feddliwaat yaakaaram ci Cheikhuna Ahmadul Xadim di santaat mboolem njabootu sëriñ Touba gépp rawatina seexi sëriñ Touba yi. di leen tàllalaat loxo nag ci liggéey bi nga xam ne at mu jot daanañ ko ànd ak moom mu di liggéeyu bàddali tooli Xelkom te looy mooy ngóobum Xelkom ren ji ñu jàpp ko départ bi ajuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tubaab sëriñ bi nag nee na mi ngi ciy fàttali ko rakkam ji nga xamante ni moo nekkoon jëwriñam di sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Abdoulahat Mbàkke di ñaan sun borom mu dolli ko yërmande ak tawfeex di sàkku képp ku dem ci tool ya na nga ko ci ay ñaan waaye di ci soññ nag ñi nga xam ne ñoo moom ñoo ko baaxoo di ko ànd at mu jot tan di ay bokkam di ay xaritam di ay wëlëreem di ci jiital nag doomi boppam di taalibeem di sëriñ alaaji Cheikh Amar bu TSE di sàkku ñëpp ñaanal ko yàlla mu dollewaat ko ca sagoom sëriñ bi di ko xamal na ko liggéey bi nam ko ci daan def rek cër ba mu ko ci doxoon la ko ci joxaat ba tey mi ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla dellewaat ci sagoom ba gën koo mën gën koo mën a taxawee di ci soññ mbooleem koo xam ne ab xaritam nga wala wëlëreem nga wala yaa ngi ci ak di liggéey ci TSE sëriñ bi nee na mi ngi la ciy soññ di soññ nag sëriñ Cheikh Anta Mbacke moom sëriñ Modou Roqeya sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdou Lakram sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Moustapha Falilou sëriñ Salihu Mbacke moom Alaaji Mouhamadou Lamine Baara sëriñ Xaadim Mbacke moom Serigne Abdoul Fata Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Abdoul Fata Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Ummi moom Serigne Cheikh Abdou Mbacke moom Serigne Cheikh Ibra moom Cheikh Mamadou Fadal Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Mourtala Falilou Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Soaibou Serigne Modou Mbacke moom Serigne Cheikh Khady Darou Mouhty Serigne Abo Mbacke moom Serigne Cheikh Fati Fall Darou Mouhty Serigne Modou Adjara Mbacke Maawul Hayat Serigne Xaban Mbacke moom Serigne Abdou Ummi Serigne Talla Mbacke moom Serigne Mamor Pakala Serigne Abdoulahat Mbacke Cambar Serigne bi di ci soññi Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Bassirou Xaban Serigne Soaibou Fall moom Serigne Modou Aminta Serigne Bada Fall Talla Yacine Cheikh Moustapha Fall moom Serigne Falilou Fall Fatikan Serigne Modou Fall moom Serigne Cheikhouna Fall Jannatul Mawa seriñ Khadim Fall moom Serigne Abdoul Aziz Fall Serigne Abdoul Aziz Fall moom Serigne Abdoulaye Fall Ndar Serigne Cheikh Diop Baye Fall Jannatu Serigne Abdoulaye Camara Dakar Soxna Ndeye Diaw Njaañu Louga Serigne borom jaasi l'islam ca Dakar ba tey sëriñ bi nee na mi ngi ciy soññi sëriñ Cheikh saam Diop ak njabootu sëriñ Massamba Diop Sam sëriñ Sohay bu Sarr moom sëriñ Basirou moom Baye sëriñ Sarr Jasaaka sëriñ Sohay bu Sarr moom sëriñ Basirou Sarr jaamu sëriñ Touba sëriñ Khadim Gaye Lawsat sëriñ Mahmoudan Diop moom sëriñ Naar Diop sëriñ Khadim Touré imam Jannatul Mawa sëriñ Saliwu Ñang moom sëriñ Abdul Karim sëriñ Mor Jaxate Daaru Jaxate sëriñ Mor Cissé moom seriñ Ibrahima Cissé Thiawén sëriñ Mbàkke Ka moom sëriñ Saliwu Ka moom Serigne Moussa Ka Serigne Abdou Samad Diouf moom Serigne Thierno Diouf Lambaye ak mbooleem ay rakkam yëpp Serigne Thierno Diouf Mboro ak Serigne Moustapha Diouf Serigne Abdoulahat Ndiaye ca xewar ak Serigne Fallou Ndiaye ak Serigne Mbacke Ndiaye xewar ak njabootu Serigne Cheikh Ndiaye xewar gépp Serigne Saliou Ka Yaañ Ka Alaaji Maam Balla Bey Ndaamaatu se Baye Cheikh Mor Mor Mbuub ak njabootu Serigne Mori Mbuub Serigne Abdou Gora Mbaye ca Pire Serigne Saliou Dia moom Serigne Modou Njar ak mbooleem njabootuk Serigne Mor Dia Njar Serigne Moussa Diagne Mbangam commune roso daayira Touba Sexaw ga daayira Téyéri Touba Serigne Baare Ndiaye ak Serigne Bay Sarr daayira Téyéri Dakar Serigne Moustapha Sène ak ñamoo àndal daayira Masongi Touba Serigne Saasi Ñang daayira soppey Serigne Saliou yëpp daayira regroupement Safori Touba Serigne Modou Diop ak ñi moo àndal daayira Xidmatul Xadim Safori Mbacke sëriñ Fallou Seen ak ñi mu àndal daayira mécanicien Touba ak li ko wër ñëpp daayira soxna Faati Jaxate ci njiital soxna Xadi Jaañ ak soxna Xadi Ñaan sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn nee na it mi ngi ciy soññ mboolem transporteur yi nga xam ne daana jàpp ci liggéey bi at mu jot di jiital Alaaji Mbay Ture ak mbooleem ñi nga xam ne daanañ ci jàpp sëriñ Abdoulahad Ndiaye ca Dakar sëriñ bi nag nee na képp koo xam ne soxla ngaa dem xel Xelkom te soxla oto mën ngaa jokkoo ak numéro téléphone yii ñuy bëgg a joxe sëriñ Abdou Touré 77 456 24 76 wala Serigne Saliou Mbaye 77 543 38 90 wala Serigne Abo Niang 77 654 84 91 Serigne bi daal mi ngi ñaan képp koo xam ne teew nga xel koom wala nga dagg fa aw gub yal na yàlla faj sa aajo ci barke Seexuna Ahmadul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.